dañ doon wër ci ay dossier pour mun na ne mës naa jël dërëm fii wala la amul ñu ne kon nañ ko organiser ab complot dégg leen ma bu wax wax leen ñu ne nañ ko organiser al complot fi ñu fële moo gën a bon fi ñu njëkk a essayé sax mbokk yi ñaari at a ngi nii waxuma ko pour jooytu de du ngeen mës a gis Ousmane ko jooytu du ngeen ko mës dégg xam ngeen ndax lan man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu neexee alhamdulilahi bi ni'matihi rek bu naqaree alhamdulilahi ala kulli xaal waaye lépp moom la rek moo tax waxuma pour jooytu waaye ñaari at yi weesu Macky Sall ak ñi mu àndal teg nañ man ak sama njaboot teg nañu injustice boo xam ne teg nañ ñu ay métit yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ñu muñee ko yàlla nag ndax ku muñ ngir yàlla rek yàlla jeexal ko senk nañu seen pen boo xam ne seen musu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ci njëkkoon jublu mooy lañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi amee askanu Sénégal yëpp taxaw ne du fi amee ñu dellusiwaat ne comme loolu am na na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggant bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram tas njabootam métital ay soxnaam métital ay doomam daal di yónnee ay nit ñu nekk ci média yi suba ba ngoon jot fu mu gën a ñaawee rek ñu tibb wax ko ci sama kaw. loolu musul am ci politique Sénégal musuñoo yegg fii wallaahi nit gënul bon Macky sal ci suuf man maa leen ko wax nit gënul bon Macky sal ci suuf parce que politique jarul yenn yi nguur jarul yenn yi te ñi muy yónni ñu nekk ci télé rajo di wax yàlla xam na ni mën nañu fajal suñu bopp te nag ma wax leen nit jamono jii nag foofu lañu ñu toll maa ngi ciy ñëw. maa ngi ñëw ci loolu maa ngi ñëw ci loolu dina ñëw dina ñëw waaye li xew ci jamono yi ñun wàccoo nañu ak Sénégal dama leen ne dinaa leen wax tuuti ci man tey may wax te yàlla seede ma am na lu ñu liggéey ci Sénégal ci diir bu gàtt am na lu ñu liggéey ci delloosi Sénégalais yi ci bëgg suñu réew te xam ni la gis feneen ak feneen. mënal nañ ko suñu bopp fii ci biir réew mi loolu am na waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak senegal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi egg naa sama terminus de ndax li xew daaw bi daaw jéeg bi mu xew ba pare ba kilifa wax ci ñun jàppoon nañ ni Macky dina am jom dina am jom daal di bàyyi li muy def waaye ndekete moom même kilifa yi da leen doon nax da doon essayer jëfandikoo kilifa yi pour mën a am temps pour ne mu ngi dem waajali boppam pour ñëw dal ci kaw askan wi kon kooku amul jom te dafa gaaw fàtte ndax ñiñ doon yónni ci moom condition yiñ ko fekkoon mars 2021 mu toog ci këram di jooy ni xale bu ndaw sol ay pantoufle toog jabar ji naan nguur gi yàllaa ñu ko joxoon nguur dafa am bakkan bu jeexee rek jeex na anam yooyu mu nekkee woon ba gëm nguur gi jeex na bu ko yàlla jàppalee ba mu génn ci loolu war waroon na xool neneen nu muy doxalee nguur nii tey bu bëggoon réew mi dina moytu luy taal réew mi Macky Sall bëggul Sénégal de moom ak ay ñoñom dañuy jëfandikoo Sénégal pour liñ ci am ci alal waaye gëmuñu Sénégal moo tax ma ne ñun dossier bi wàccoon nañ ci ak Sénégal dañuy wax respect des institutions de l'institution judiciaire respect institution judiciaire boobu moo tax bi ma juge d'instruction woowee yéen ñu bëri da ngeen ne woon du dem du dem du dem may leen nañu dem rek ndax ñun xam nañ ni lii ay feni neen la te am nañu suñuy preuve yoo xam ne war nañ koo teg ci taabalu juge d'instruction kon nañ dem uyu ji juge waaye bi ñu demee jox nañ juge d'instruction rapport gendarmerie jox ko ay audio jox ko ay kayit jox ko lépp waaye bi loolu yëpp amee gis nañ ni moom Maham Diallo Maham Diallo du nit ku baax Maham Diallo xam na ni moom fen na fenal na boppam fenal na justice fenal na askan wi yëpp waaye bettu ma ndax anam yi ko tànnee xam nañ ko fi ko tànnee senegal yëpp xam na ko te lii mu def nii dina ko topp ba dundam di jeex parce que du yombee noonu ah kon nag def nañu loolu ñun jàpp nañ ni suñu terminus egg nañ fa kenn duñu këll këllee kenn duñu fontoo kenn duñu jaay doole suñu terminus ci dossier bi egg nañ ci.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 déglu leen ma rek dinañ déggoo su ma waxee loolu mu leen ko déggee neenu mi déglu leen ma rek dinañ comprendre loolu tekkiwuñu wu ñu dem jox sam bopp Macky sal xam ngeen lu muy tekki mooy makki Sall dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dee dafa bëgg a continuer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 ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen est-ce pare ngeen daañu xeex Rema ina malego hiyo Mama ina malego waxal daañu xeex ak moom bu dee gendarmerie ak police rek la yaakaar na préparé xam ni dina rey Sénégal yëpp waaye daañu xeex ak moom parce que nag mu ëpp tuuru de noo mën a mën muñ yonent bi moom moo ñu gëm ñun ñi